la la sëñ bi lii folo c'est du folklore bu la naqaree deewal mais folo du diine kàddu yu ñaaw yu mu war a mën a jéggalu lu mu gën a gaawee moom mi nga xam ne jàpp nan ni wala doomu aadama yi bari daan nan ko wooye oustaz Omar Sall oustaz boobe nag daanaka fi mu toll nii loole da koo réer mbër kàddu yi ñaaw na ñaaw goo xam ni gars yi musiba naarullahi gi nga xam ne daanaka moom mii di oustaz bi wax na ko ndax suba naaru lay bu ngeen ko déggee mooy maanaam nit koo xam ni ay doomu aadama jàpp ba sell julli tàkkusaan dajaloo di mbooloo di bàkk ki nga xam ni mooy sunu borom sunu borom nag bu ñu ko déggee mooy ki bind doomu aadama yëpp loolee gaa yi ndax am na lu ci ne loolee gaa yi ndax yërmande newu ci loolee gaa yi ndax daanaka ñaanal Sénégal newu ci ndax loolee gaa yi dellu ci sa borom mi nga xam ni moo la sàkkoon newu ci jàpp naa ni loolee moo tax ñi nga xam ne ñooy mbokki julli ji ne ci réew mi du ma wax tijaan yi ndax ku ko deful ci jumaa ji defoo ko ci buntu jumaa yi boo jullee ba pare yaa ngi sa buntu kër wala yaa ngi sa kër wala yaa ngi sa néeg di ñaan sunu borom mu jéggala say bàkkaar di ñaan sunu borom tawféex ci réew mi yaakaar naa ne loolu la gaa yi def moom mii di oustaz bi nag am kàddu yoo xam ni yëkkati na ko déranger nañu baree bari kàdd yooyu lañ leen bëgg a ngeen dégg ko après ñëwaat. mooy soo comprendrewul yow da nga naan lii lii sunna la saxaaba yi def nañ ko mais modd bi ñu ko defee moo tax mu nekk bidaa ndax saxaaba yi xamuñ ko saxaaba yi musuñu toog nekk mbooloo sànni benn affaire ñëpp dajaloo toog di gën guus dural allah allah allah non sëñ bi bu la naqaree deewal mais folo du diine ndax loolu ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la wàcc defeewu ko noonu yéen genre bi ngeen ko defee moo tax ñu ne diglu ngeen kàddu yi ñu bari jàngate ci ak saboote goo xam ne na mu ko doon defee ak nam taxe woon di ko wax loole ñu ñaawlu ko bu baax a baax te képp kuy jullit it war nga ko ñaawlu am na leneen loo mënoon a ñaawlu ci réew mi ma jàpp ni lu bokkut ak li nga xam ni daanaka ñu sell ñoo koy def ñu sell bu ngeen ko déggee mooy ñoo xam ne daanaka lépp lu ñuy def rek day day sell loolee tamit ñu ñaawlu ko comme ni ñu leen ko waxee bu baax a baax waaye nag gone yi yemunu foofu ndax ñi nga xam ne daanaka mooy jeunesse bi nga xam ne daanaka ñoo bootu ci li nga xam ni moo nekk ci eh, tijaan yi danañ roof ab galgal maanaam dana dugal ab pelante boo xam ni kaddu yi nga xam ne maanaam dafa situé maam ay eh, li nga xam ne mooy ab tarixa daal di leen koy waxal ñoom it am nañ droit jël seen décision yóbbu mbir yi ci yoon loole tamit daanaka def nañ ko kàddu yooyu na ci dellu ginnaaw bu baax a baax ndax du lu rafet du lu jekk du lu jaadu te it saboté doomu aadama loole daanaka mën naa nekk ak tooñ goo xam ni day mujj tooñar bi mu naqarinu ñun ñi nga xam ne ay taalibe seex lan mais naqari képp koo xam ni maanaam yaa ngi ci kaw euh, fii suuf ci Sénégal ndax bu doon yow a du la neex loolee tamit ñi ngi koy métti lu gars yi ñi ngi jéggulu ci wax ci jéggulu tamit daanaka ci ni nu ko doxalee waaye nag lépp nag mooy am méttit am loo xam ne lu nu naqari la yàlla yàlla defal leen jàmm defal leen sutura eh, ci milieu réew di Sénégal